ñëw mbaaw seet ko ndax olof dafa nii ci banlieue bi kazalika na ko noonu sport bi sa loxo ngi ci waaye nag man li tax ma gën a jàpp te dama bëgg àdduna bi yépp dégg ko foo ma woo ci àdduna ma wuyu la ndax waajur dafa am solo te dafa sori ci doom keroog bi so papa alaaji Cheikh Mbacke Diouf génne àdduna yàlla na ko yàlla xare aljana yaa njëkk ci morgue bi ne ma fan la góor gi nekk ma ne la góor gaa góor gaa ngi ci morgue bi nga ne ma matul may dugg mën naa taxaw rek ci buntu morgue bi dama ko bëgg a jàngal yaa sunul Qur'an génne sa portable keroog def nga ci buntu morgue bi une heure de di jàngal semua papa alxuraan kon yow tonton gàcce gaalama yow famo wo mo wuyu barke Seydina Muhammad famo wo ci aduna ma fekk ci la mission bi nga bëgg nak yal na la ko sama borom defal ñu nga bëgg ci mbaaw nga wax mako wax ko sa doom amal sen yal na la ko sun borom defal ñu ne sa ginaaw suba ngoon guddi bëccëg caayoo cumbel cumbel caayoo cumbel ci njarawali kama caayoo cumbel caayoo cumbel caayoo cumbel ci ku nekk nga nekkal man ko na ñëpp gën a dellu ginnaaw